Ouba, méchoui Ouba, poulet Ouba, pigeon Ouba, pintade Ouba, bool Ouba. kaay ma wax la fa dibi safe mooy 77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 doo defar dara débiteur yi Uba la cay Uba moo jaaxal réew mi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 ci Sénégal Buzz 221 ma bàyyi la rek nga nuyoog mbokk internet yi. oui salaamaaleykum salaamaaleykum maa ngi bëggee tur lemb maa ngi bëggee képp ku nekk si internet bi di bëggee ñëpp. di bëggee Sénégal bi di leen bëggeen tamit en tout cas sur Sénégal Buzz ah. respect à tous les citoyens sénégalais as maa ngi bëggee ñëpp daal bàyyiwuma kenn quoi. jaajëf. yaa ngi bëggee ñëpp bàyyiwoo kenn yaakaar naa ne kàddu yooyu kàddu yooyu am am solo la waaye fan yi naka nga jàngatee li nga xamante ni moo di réew mi ci jàmm ji nga xamante ne ñu ngi koy dund ci Sénégal yëngu yi nga xamante ne daan am ak yu bëri dal ci réew mi jàngat bi lan la. waaw loolu am na solo quoi parce que ñun doon ñaan yàlla quoi. parce que ñaanuñu yàlla nekk fii di indi ay problème di guerre di taal di yàq temps bi di def lii. Mm-hmm. tu vois kon dañ ci sant yàlla quoi. waaw léegi nag wete ñu war a fol ñoom nanu nekk ay nit juboo ñu xool ñoom nan lañuy def. pour réew mi mën a avancer quoi. Mm-hmm. voilà pour réew mi waaye naka ngay déggee ñu nga xamante ne à chaque fois rek dañuy wax ni jàmm ji ci loxo ki nga xamante ne mooy la président de la république la nekk ndax euh, li sénégal yi bëgg bu leen ci fekkee rek jàmm am waaye bu bañee lu Sénégalais yi bëgg rek jàmm du mën a am. non instant bi moom te Macky Sall loo koy wax quoi. Euh, parce que gars yi doon xaar mu ni day bokk troisième mandat. moom taxaw na ni la moom demul troisième mandat demul élection. jeex na quoi. leen lu fu waay wax rek yaa bëgg ay coow wala ay boucan wala ay moom nee na leen bokkul bokkul. est-ce que loolu si man da doy na quoi léegi ñoom ñuy xëccoo. ñoom nan ñoom nan def effort quoi. voilà mais euh, président waxee loolu noonu ñuy xaar ci moom mu organiser ay élections yu jaar yoon euh, ki bëgg a bokk ñi nga xamante ne bëgg ñoom bokk ñu toog seetaan waaye ñii bokk ak ñii ñoo dul bokk tànneef boobu noonu sénégalais yi gis ni noonu la bëgg a organiser yi ñu bañ loolu ne du fi amee. ah man daal xam naa ne en tout cas ñoom politiciens ñoom seen biir rek quoi waaw man daal li may ñaan ak di leen ko conseiller ñoom nañ xam ne ñun. danoo sonn si ay xeex ak ay taal nanu créer beneen solution te Sénégal bu nu jógee si lii dal si lii bu nu jógee si lee dal si lee ah xam ñu mel ne ñu ngi dañ leen jàppe ay buubu golo ko lanu jàppee doomu aadama yi tu vois kon donc ñoom li ñu war a def mooy ñu xool ñoom nan la mën a def pour avancer loolu temps bi ñun ñoom nu nu mën a def pour sénégalais yi kontaan nu nu mën a def pour li amoon nu bañ amaat mm-hmm. yow dépp ñaataat ñu ngi guerre depuis ko trois ans ba léegi presque ñu ngi guerre taal bakkañ kañ quoi ah mais kon moom man li ma doon xaar moom xoolal président ni moom te day bokkaat troisième mandat mais démissionné na nag kii quitté na foofu instant bi amul lenn loo ko mën a wax quoi waaw naka ngay déggee euh, euh, projet de loi bi nga xamante ni moom lañ bëgg a dugal assemblée ñu bëri jàpp ni euh, ba tey rek complot judiciaire la ngir ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko bañ bokk ci candidature yi waaye jàmm Sénégal ñu gis ni Ousmane Sonko ñu bàyyi mu bokk ci candidat loolu mooy indi jàmm ci réew mi bu bokkut mën naa indiwaat ay yëngu-yëngu. man moom du wax kenn mu bokk wala kenn mu dañ ko li may wax rek mooy ak ku mën a bokk ak ku mënul bokk tamit nan fexe ba dee ah, ñaata nit ñoo dee quoi ñaata nit ñoo dee et puis pourtant ñoom ñoom yëngul sax ñoom loolu sax sax seen yaram quoi mais booy yi dee passé est-ce que ñoom ñu ngi xalaat doomu jàmbur yu dee est-ce que ñu ngi xaat ñaata nit nañ fi rey ñoom ñu ngi xalaat quoi ñoom instant bi ñu ngi soulagé ñu ngi jubilé ñu ngi teg seen ay programme seen lii mais nit ñi jot a dee ñoom ñooñu nan lay mujje déggoo ma ko dëgg bi xool su kañe faloo sax baax na projet de loi boobu ñuy wax noonu ah duma si wax tant que waxagun si quoi parce que sénégalais mooy yàkkamtee ma maanaam laj gi amee lump nit damay gars yi li ñu doon xeex ay jamono di taal temps naan Macky du bokk troisième mandat mais Macky bu mu xëyee ni la bokk bokk ñu bëree ruus. dañuy projet de loi mën na ñëw nga déggaat beneen surprise man du ma justice quoi. il faut ma gis la réalité. ma wax ko nekk ma fii comme gars yi topp ay kaa wala topp problème jàmbur di ko souligner non non non. Euh, ñàkk bokk Ousmane Sonko comme ni nga ko waxee ndax mënul woo indiwaat li nga xamante ne moo jotoon am ci ginnaaw. waaw man moom ñaan la yàlla mu bokk quoi. waaw parce que tamit gars yi am nañ seen candidat quoi. waaw fii woo man vraiment man fii bu dul sonkoo man ko gisuma fi benn candidat quoi. waaw fii man fii. non man dama ko gisagul fii quoi ba bu dee ñii ma gisagum ñii et réew mi dafa mel ne léegi réew mi waa réew Caapa Yaasin la. barke alxuraanu karim ay maître El Hadji Diouf. non Paaw dafa neex. non dafa xoromu quoi. xam nga maître El Hadji Diouf ndeysaan man Paaw lu ma ko yërëm moom moom moom moom moom moom na xam ne moom benn saaneex la rek ci biir politiciens yi. billaahi wallaahi mais moom lan la mos a gagné ak ban projet la mos a gagné ay su ngeen ma joxee réew mi ku taal ma taal la ku rey mais mais Maître El Hadji Diouf moom est-ce que ça va man làkk ndax moom ça va ba pare quoi ndax moom mu ngi conscience am wala mu nekk moom moom xanaa dafa am lu muy jël boo hmm. mais yenn yi quoi hmm. ko wax quoi. mais bëgg nga foog ne ñun daana jël suñu. suñu temps bi di jox El Hadj Diouf mais yow est-ce que loolu est tamit arrête li mu bëgg la wax. non saa yi xam nga bëgg da ngay bëgg loo xam ne <laughs> lu mën a nekk. Eh. ah loolu mënut a nekk. non saa yi loolu <laughs> non moo neex quoi non paa bu xorom la paa boobu quoi dafa neex quoi billaahi wallaahi man moom dafa ma jaaxal ka mais Dibé yaa fi wax léegi ku falu baax na bu ñu ko joxee kañ sax baax na. kooku moom baax na moom quoi. parce que tamit réew ay wax. du ay nganda ngandu du ay comédie ah, mais kooku kay ah, ah, moom moom su posé candidat ah. mais Adji moom lan la ngay def quoi <laughs> ah xanaa Adji Sarr day posé candidat. ah Adji si si si si allah jub tamit noonu day plané paa bi. non paa day nelaw. wallaay mais xalaat nga bu mën nañ ko validé ndax day yaakaar poste weta ministère mbaam yaakaar post fële wame fi gars yi di raage wame assemblée wame arène nationale mu fi bëgg nekk moom place libre quoi pour nekkaat waaw même rôle quoi na nekk député mën na nekk assemblée mën na nekk feneen feneen quoi mais moom moo la gën a xam ni moom daaw ñaata voix am ay quatre voix la xaw ma. xam nga ba après gis naa ñu bare naan dañuy bokk élection xam nga tamit yéen yi bu nu yëpp Sénégalais yi te bëgguma sax turu turu ñenn ñi mais ngir yàlla bu nu yëpp. Euh, bu ñu la yab naka ngay jàngatee tey moment bi toll nii ñu ngi ñu ne li des ñu dem élection matatul sax juróom benn weer wala ci ci koy mat ci lay yëpp waaw non moom dinaa ñëw ci parti boobu noonu mais ki nga xamante ni mooy euh, APR ba tey xamaguñ seen candidat te parti yëpp xam nañ seen candidat. waa xëy na seen stratégie la parce que tamit yenn xam nga am teel wax tamit baaxul quoi. Hmm. ni ku nekk ni ngay ñoom Macky Sall ñoom gënuñu muus Macky Sall ñoom ay politiciens lañu. Hmm. tu vois waaw mu ne ma si mu ne kii may falu kii wala kee kee. Macky moom bokkatul mais mais moom mën a tànn ku ko neex mais est-ce que nit ñi bëgg nañu kooku. ah man daal li ma gëm moo ñu tànn nit ñi ñu tànn ñi nga xam ne nit ñi bëgg na leen ñu ëf ñu ëffal leen sur le terrain waaw ku mën door jël bu rëy. loolay combat bi yes saay. Euh, candidature Ngor daal man jaaxal na Mame Ngor moom mënu bàyyi tamit lii quoi moom man musa naa def benn vidéo naa ko maam Ngor. sam waay la nag quoi mais day sonal mu rek quoi. ndax gis na nañu si élection yi paase xam nga ay cinq 16 laa gis xaw ma 6 16 xam nga booru gàllem noonu tamit am na yoo xam tamit donc nekkul da nga bëgg lii. nu ku nekk la yàlla def quoi. élection locale yi bëggoon na maire tamit. Euh, waaw mais amu ko gisoo ay quatre personnes laa gis ñu génn seen ay seize foofu noonu. xam bi paa réew mi la song. xam nga bi maam Ngor Diazaka non dafa war a yem si li muy yem quoi mu nekk si li mu nekk mu doylu ko xam nga nguur nag yàlla moo koy joxe mais lu jot dafa war a jeex quoi. oui mais moom bu nee day posé candidat day sonal bor day yàq ay millions rek quoi. waaw ah, mbala xëy na boobu mu ngi noonu na yàlla baax na dem. waaw ah, man sax dama bëgg a posé parce que tamit saa nii. man foo ma posé candidat quoi. waaw oh, waaw mais rek muy gaaw loolu sama candidat tudd quoi foo ma posé candidat quoi. incha allah rabi parce que ñi ma gisagum nii. ñii si mbedd mi non yaa ngi gis télé bi yow réew mi ñu naan dañu bëgg poser candidat ñii wérunu mhm. ñii dana am problème mu xel mhm. ñii dana am problème mu làmmin ñii dana am problème mu taat maanaam bëgg xaañ ñii am problème mu weccit mhm. non mais pas intérêt le peuple sénégalais intérêt réew mi quoi hmm. waaw ku mu neex nag nga wax lu la neex. mais ci ñi gis ni yow. kan nga gis ni tey euh, intérêt réew mi rek rek rek ko ñor. non loolu loolu sama secret la du lu may wax ni quoi. Hmm. waaw mais nit ñi xam na nañu quoi. voilà yàlla xam na tamit quoi. yàlla xam na waaw mais ci li may génne ci point boobu doon tuuti rek mooy maam Ali euh, sénégalais yi ñu bëri tamit dañu koy seetlu ba léegi dañu koy bind ci commentaire yi mooy 10 euh, 000 léegi dafa changé discours am. nu ñu daan déggee dix mille mais taxaw dëkkam di dëggal boppam di wax léegi sa discours dafa changé lan la. non parce que li ngay kaas da ko kaas ba sonn bàyyi ba man lu ma wax rek la di waxaat nii lu ma wax rek la gars yi di waxaat ma wax lépp moo am moo feeñ. waaye bokk ma su ñi nga xam ne ay nit dañ leen di waxloo wala di leen ñuy toj fii du toj fee wala topp lee waaw waaw man lu ma wax rek man sama. booba sama yëg-yëg la quoi. Mm-hmm. ba amee ak lu ma xam ko waaw ndax nit ki lam su waxul dëgg wax fen mm-hmm. te nit ki booy wax da ngay wax dëgg te yàlla moo tax quoi. wax li fi nekk wax société bi nu muy demee ak nit ñi ni ñuy dundee ak li xew ci réew mi ak nit ñi li ñuy jàkkantool mais paax liggéenti ay coow wala ay problème jàmbur wala ay kaaw kii wala ay kële saa gaw ma ko quoi. waaw njëkk nekk na sa philosophie quoi. 10 mhm. 000 discours am ak nii ñoom nañu fexe changé. Mhm. man loolu laay ñaan yàlla quoi waaw. loolu laay ñaan yàlla quoi. Mhm. loolu laay ñaan yàlla ko suñu borom euh, dafa ndafel bu baax a baax a baax ma.